sama sama ndeyjoor. Jéegi nuyu naa la. maa lay nuyu. lépp jàmm. waaw lépp jàmm ko. Jéegi tiitoo. tiit. man instant bi lii moom vraiment defuma ko. Jéegi moom damaa tiit. parce que Pape Samb oto ko indi. ah oto ko indi. waaw day neexal noonu rek waaye lii moom vraiment defuma ko combat vraiment. lañ ma wutal. ñu daw moom ñu jéem jël combat bi. dégg naa lépp nag li muy wax nee na combat du am deux minutes. Tout passe deux minutes, on défend. Pourquoi deux minutes. Tout passe deux minutes, on défend. Comme Je ramène un petit deux minutes, on vient de dépasser. Je viens de dépasser deux minutes. Qui est bon, on a une condition. Pas ça, vous l'avez dit, nous, là. dafa jàpp ni dafa amee bu rafet si biir dëkk bi parce que lii dafay dundal làmb booy yi dañ ci war a bëre wane ba wóor leen làmb parce que làmb yi dama dama commencé yàq jàpp commencé ñëw ak équipe am ñuy dundal làmb. tàccu leen loolu tàccu leen loolu. mais booy dañ ci boole ak yàq parce que làmb suñ koy defar nekkul dem ba sa géew ba fu ñu leen toog rek ku nekk bañ a toog loolu day yàq làmb dafa wër làmb si waay. te ñoom ñu ngi def ay xalaat yu baax di ko def di ko organisé dañ leen jàppale. dañ leen jàppale léegi ñu ñëw si combat bi Pape Samb affaire bi lan la tey nga indi daa mel ni am na ñu nekk sa ginnaaw nag ñoom Dade gars yi waa Nduba bi xanaa dañ laa cëral ci xaalisu làmb ji paase du fa demee. non du waa Nduba kese sax ak seen waa koñ ñoom. non yaa ngi jaxase parce que tur bi mooy sama ménage ñu ne jaxaseeg Tumblé de. nga dëkk ak Tumblé mu e Tumblé mooy menacé la. non xam nga wax noonu rek. waaw day wax noonu rek waaye xam nga ne vraiment ku xam Tumblé xam nga ne maak moom nii lañ def léegi muy wut weerukaay. nee na da ngay wut weerukaay seen koñ nee na da ngay daw làqu yemal seen koñ. xanaa man combat bi damaa toog ba Tumblé xool ma téléphone. waaw ne ma doon naa la combat. mu ne ma doy bi baax la. parce que dimbali boobu njëkk a tëgg a combat laa ñu tëggoon Touba. 2016. bu ma adversaire moom la gën a adversaire. 2016 ba 2023 amul adversaire. moom tamit nee na dañ ko wutal adversaire ba sonn. mais dafa xamul nag su xamoon. du waxee nii. mais combat bi noo koy pare. su xamul loolu laa lay wax su xamul du waxee nii. ndax lan dafa war a laaj ay grand ñëw aaroon jël ñëw aaroon jël su ne mu laaj ko. waaye ma xam ne xam na moom bu baax nee du am deux minutes day yàgg deux minutes dafa bëri non yow yaa ne du am deux minutes mu ne bu amee deux minutes da ngay xam léegi wax wax nga ko deux minutes de une minute sa combat bi du ko am loo tontu si loolu kay humidité loolu yëpp lu muy luy tax muy gën a jegeel combat bi ça veut dire condition ba lay dawal. amul entraînement amul entraînement te man dinaa ko yóbbu ba dépassé cinq minutes. da ko yóbbu à l' usine ni nga ko waxee. voilà noonu laa koy waxee nag te ñëpp nag tout à fait jour boobu di seetaan combat bi dinaa wax. Pape Samb dégg nga lu muy wax nee na yow amoo entraînement liggéeyoo te daa mel ni wax na dëgg yaa ngi nii bi de. waaw parce que liggéey bu métti boobu xaju fii combat bi si dix jours laa ko jël combat bi si dix jours laa ko jël si dix waaw moom xam na si dara kon liggéey bu métti boobu jaru ko xam ne waaye xam si dugg bi ku rate dugg bi mun nga jub asa kon mi ngi noonu ku rate dugg bi mun nga mun nga njëbi ñu bàyyi nga woo gars yi nga xam ne bëgg nga ñu jàpp si combat ñoom kan ak kan ngay woo ak ñi si commencé jàpp yëpp waaw damay oo waa Ndubaab rek ñoom ñëpp ñu ngi suy jàpp ñoom ñëpp ñu ngi ak waa Koñam ñoom Dundee. waa koñam ñamal sa koñ non waa koñam xam ne moom xam na ne waa koñam nga sama ménager xam na ko moom su waxee te yàlla te xam na ko waaw doo waaj waaj waaj yëpp ñu ñëw def neexal ko parce lii fay dundal làmb Joal lii daa bokk si làmb moo ko mën a dundal boo ne ci boor rek yar rek Joal jëm kanam nii loolu tey ci ñan ngay woo parce que moom woo na waa koñam woo sa waa koñ amatoo ñoo woo daa mel ni ah may suma waa koñ koñ yëpp d' accord jaajëfal nañ leen ambiance di jee yéen ñëpp daal xam nga ngeen di def bu leen demee noonu kaa leen ñëgal